asalaamaaleykum suñu mbokki internet yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen jaajëfal di am contentement ak mbégte comme saa su ne nuñ koy defee ngeen di ànd ak ñun la chaîne leader saa su ne seen dundin ak seen nekkin ñuy woy ak a siiwal ak feeñal borom xam-xam fépp fu mu mun a nekk ci biir réew mi tey nag amaat nañ contentement ak mbégte dalal kilifa borom xam-xam bu kenn dul naatable ñaankatu yàlla bu ñu ràññee ci biir ak ci biti réew mi. ku yàlla jagleel may jagle ci wàllu faj ñu gën ko xam si Serigne Babacar ñu koy dàkkantalee borom xarwak sëriñ Babacar borom xarwak nuyu nañ la. waaw alhamdulilah maa ngi leen di fay bu baax di wax ne auzu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim la hawla wala quwata illa billahi al alil azim ñu ngi nuyu booleem ñi nga xam ne ñu ngi ñuy seetaan te ñu bàyyi xel bu baax a baax fu ngeen mën a nekk ci àddina moo xam ñu nekk ci réew mi ak bitim yow répp fa tabaarakallaahu ñu ngi leen di nuyu te di leen fay bu baax a baax mbokk mi. ñu ngi lay fay Serigne Babacar borom xarwak tey nag ñu seet si la pour am yow waxtaan laaj ak tontu waxtaanee xam-xam waxtaanee pàcc yu bari ci mbiru xam-xam tey suñu question bu si njëkk rek sëriñ Babacar bëggoon naa ñu amal ko tuuti ci wàllu seet li si xaar ñu gën ko xam ci wàllu seet daanaka buñ ne Cheikhu Asrar. bunt bu njëkk ci moom yaakaar naa mooy bunt bu mu war a gànnaayoo mooy buntu seet sëriñ bi ba ñu doon wax tey ci tënk ak leeral la mooy dëggi-dëggi seet ana lan moo dox sa diggante ak seet tey jii ana yan bunt lal sunu borom may ci wàllu seet waaw alhamdulilah nga laaj ma lu am solo nag loo xam ne mooy suñu tàmbalee lépp loo xam ne ñu ngi koy def rek dañuy wax ni faw ñu xool ko ba xam lim doon parce que lenn boo ci bëggee dugg te xamuloo ko da ngay tatoone rek waaw moo tax nag ñun ñu suñu mbir yëpp dañ ko tënk ci seet seet nag mooy listixaar mooy voyance bu lépp ci aju daal moom mooy fexe ba xam li nga xam ne moo dal doomu aadama bi wala nga xam li nga xam ne moom la ko mën a defal ba saafara ay mbiram yépp incha allah ñun nag yàlla def ñoo may bi ñuy am fukki at ci lañu yore seet seet boobu bu ko yoree nag dafa fekkoon xamuñu woon luy luy luy àddina ndax ay xale lañu woon waaye mayu yàlla la bu mu ñu jox directement euh, branché wuñ ko loolu nag boobu ba léegi nag bàyyiwuñ ko ci la ñu nekk waaye am nañu xeetu seet bu bu bare bare bare ndax ñu ngi seet ci wàllum kurus di seet ci diggante chiffre un ba chiffre neuf ñu bari xamee ñu ko xamee ñu ko tamit ci euh, média yi fa tabaarakallaahu ñu def ko ay yi at fa tabaarakallaahu di seetal jaami yàlla yi loolu bokk na ci ni ñu koy defee wala listixaar bi nga xam ne ñëpp loolu la ñu miin ndax boo waxee listixaar dañuy wax ne nit ki dafa danga ko war a wax soxlaam maanaam nit ki nga xam ne dafa bëgg a dugg ci soxna wala mu bëgg a wut kër wala mu bëgg waatu waruwaay wala muy wut liggéey war nañ ko listixaar ba xam ndax dina baax wala du baax wala yoon bu mu jàpp sax ngir voyage loolu nag mbokk yi loolu la ñuy jaawatle dag ak euh, seet waaye lépp benn la ndax dangay xool rek ba xam lu ci mën a aju yépp loolu yépp dinañ ko faral di def moo xam ñi nekk ci réew mi ak ñi nekk ci bitim réew képp koo xam ne Euh, téléphoné nga ñu rek incha allahu taala dinañ la wax say mbir yëpp incha allah wax la sarax yi ci nekk ndax bu leen jaawaat ne sarax mën naa fank lu baree baree bare moo tax suñu lépp ñu tënk ko ci seet seet bi buñ ko defee ci la mën a xam naka la mën a fajee nit ki bu fekkee feebar la bu nekk naturel ñu xam ko bu fekkee aussi loo xam ne baatin la euh, ñu war koo xam naka lañ koy saafara incha allah mbokk loolu daal mooy tënk listixaar ak voyance. leerali am na solo trop loolu moo nekkoon daanaka tontu bi ci wàllu seet bu ñu paree ci loolu tamit bëgg naa tuuti ñu waxtaanee benn jafe-jafe tamit ak benn maanaa bi nga xam ne ñu bëri des fois dañ ci am ay lënt-lënt nga bëgg naa nga indi ma ci ay leeral mooy mbirum rab tey ji sëriñ bi lan mooy rab lan mooy usul bi lan mooy cosaanam tey jii rab nan lay duggee ci doomu adama tey jii rab bu duggee ci doomu aadama ana lan mooy doon ay manifestation am ana nan mooy lan mooy nekk jaaruwaayam tey jii rab bu duggee ci nit ana yan tamit tegtal la war a def jaamu yàlla bi loolu la war a def pour tey jii rab boobu bàyyi ko wala tey jëm képp ku bugg ci mu mucc ci mbiru rab ana lan mooy jaaruwaay. waaw alhamdulilah muy lu ama am solo ndax dafa mot a leeral muy wàllum rab wala jinne des fois sax ma am jafe-jafe ci dëgg-dëgg bi bu nit ñi di jaawatle rab ak jinne ngay dégg ku la naal rab nii la jinne nii la waaye lépp lépp yépp jinne la tabaarakallaahu waaye dafa bari ay xeet dafa mel ni nga de doomi aadama rek am na ay tubaab am na ay chinois am na lu ci mën a aju yépp am na kon jinne noonu la di mel waaye dina dugg doomu aadama nag yàqal ko ay mbiram yépp ni muy manifesto bari na des fois nag nit ki am àndandoo boo xam ne daf koy yàqal maanaam lépp lu mu yaakaar mu tas bu amee ay relation ak nit ñi mu mel ni nit ñi dañ leen mere fa tabaarakallaahu du ñu mën a am relation bu mucc bi bu fekkee góor la aussi buy labat dafay gaaw da yàqu bu dee jigéen la aussi pour mu am borom kër dafay jafe wala mu am doom yooyu yëpp manifestation wu rab la waaye beneen bi ci topp nag bi gën nit ñi gën a siiwal nag mu gën a doon seen problème mooy bi nga xam ne daf laa dugg ba indi la ay problème mu li ñuy wax euh, daanu mberfelin la ñuy woowee épilepsie wala ñu mel noonu des fois mu am ci xale yu jigéen yi am dix huit ba vingt ans ñu leen di daaneel des fois nga gis ci école bi sax mu daaneel leen waaye lépp lu ci mën a nekk rek mooy jinne yi nga xam ne moom dañuy tooñ bés bu jot te wa nit ñi war nañ koo xam ndax am na ay agresseur yoo xam ne ay nit lañu te mais dañuy agressé bés boo génnee rek jaar fi nga xam ne dafa point dangereux la rek mën nañ laa agressé moo tax ñuy wax mbokk yi fépp fu ñu mën a dem nañu xool ban heure la ñuy génn seen kër ak ban heure la ñuy dugg ci seen kër ndax dafa am moment yoo xam ne ci la rab bi di lay dugg moo tax mag ñi daan tere nit mu dox njoloor digg njoloor bokk na ci diggante tisbaar fa tabaarakallaahu njoloor googu dañ ci tere nit mu dox parce que boo doxee mën ngaa dajeek ñoom beneen bi ci topp mooy timis timis bi nag bés bu jot ma wax ko waxati ko wax naa ko ci ay émission yu bari da ngay dégg ñu ne allah akbar ñu ne xale yi dugg leen ci biir ëpp na di def bu ñu noddee kañ nit ku nekk mën naa doxi soxlaam waaye ñu ngi wax ne timis bi mooy saa taakusaanu suuf boo demee ci saalum dañ lay wax taakusaanu suuf mooy diggante euh, taakusaan bi cinq bi boo ko jullee ba noppi ba diggante dix-huit heures jàpp dix-neuf heures yooyu mooy moment difficile yi nga xam ne ci la rab yi di génn kon képp ku bëgg a mucc bàyyil dox diggante saaku saanu suuf ba timis heure boobu mooy dangereux mais bu fekkee timis jot na rek heure dangereux bi jeex na danga may laaj nag jinne yi fu ñuy dugg bu ñu noddee allah akbar fan la dem dañuy dal di dem ci douche ya moo tax ñu mag ñi daan tere nit di sangu timis mais dañoo leen lépp ba liñ ciy wax li ci li nit yi di wax li ci ñu ko maîtriser bariwuñ waaye maa ngi leen di wax ne leen képp ku leen wax bu nit ñi noddee dem leen dugg ci seen biir kër bokkul parce que buñ noddee da ngeen war a gën dem ci jàkka ya kon foofu mën ngeen gën di doxi seen soxla waaye tàkkusaanu suuf boobu bu leen doxi te euh, bu ñu noddee timis bu leen dugg ci toile ci di sangu loolu bokk na ci heure yooyu beneen heure bi mooy bu suuf seddee suuf seddee bokk mu ngi dem trois heures trente dem quatre heures heure boobu heure jinne la des fois nag bu dee dakaar mën nga gis oto buy daw nga yaakaar ne oto la fekk jinne la mën ngaa taseeg yaakaar ne nit la fekk la bu dee ca àll ba nag yaa koy gis xamal ko sa bopp mooy nga jàkkaarloog loo xam ne leer na leen lii moom nit la jëmm nit la yor waaye mënoo mënoo koo xam ca dëkk ba parce que xees na xeesaay boo xam ne wala karaw bi wàdd na ci suuf ba nga xam ne euh, da ngay xam ne lii moom du nit ndax loolu dafa arrivé sama doom boo xam ne cheikh la ànd ak euh, war mbaamam am na am na dànk bu nekk suñu ginnaaw kër bi mu jógee ca àll ba ba tiim dànk bi rek euh, mbaam bi dafa taxaw bi mu taxawee nag maam bi dafa dee kon loolu mu gis jigéen bu taxaw euh, karaw bi wàcc ci suuf moo tax loolu leeral la pour nit ñi di wax rab nii lay mel mënoo ko gis ci melo bi mënoo ko gis ci melo yooyu yëpp dañ koy multiplier par zéro li tax ma koy multiplier par zéro parce que day sonal nit ñi boo fi toogee naan nii lay mel yaa ngi sonal nit ñi loo xam ne lu ko neex lay mel ak bu buggee nga gis ko noo ko noo ko bëgg a gisee loolu la ko gisee kooku jaru da firnde mës naa ko wax ci benn waay ma ne ko boo may laaj euh, jinne nu muy mel dama lay jox couleuru kakatar kakatar am amul melo bu toogee ci lu weex day weex bu toogee fu rouge day rouge jinne noonu la mel képp ku la mënul décrire loolu day wax lu ko neex rek loolu kese la définition bi loolu nit ñi nag xamal nañu ne ci alquran wala cosaan rab dafay daal di soppaliku jaan bokk na ci melo yi nga xam ne daf koy soppaliku loolu bokk na ci pour mu def ko doo xam lu mu doon bokk na ci def jiit bokk na ci def calaweer loolu lépp bokk na ci nga xam ne jinne dina ko def waaye jinne daal lépp lu mu mën a nekk ci àddina ñun dañ koy saafaara ci lu gaaw moo xam kiy daanu rab la bés bu jot du mot lu mot semaine du ko bàyyi te du jar ay xuloo du jar ay xeex donc fii ci centre bi amul amul xeex ak jinne amul dóor kenn lu dul jox la saafara nga sangu jox la ko nga naan ñu jox la cuuraay nga suuroo ko rab bi bàyyi la ak rab bu mën a doon ci àddina nag une semaine du ko paase rab ba bàyyi la xataa sax rab bi dal na nit ki ba dofloo ko ndax faj ñu fi ay nit ñoo xam ne bi ñu dofee dañ leen yóbbu dalal xel ndax foofu la ñuy yóbbu nit ñi nga xam ne ñi seen xel yi dañu am problème mais fekk na nag xel bi amul problème ndax jafe-jafe àddina waaye rab a ko def kooku moom docteur ba mënu ca dara ñooñu dañ leen di fexeel ba fu ñu mën a nekk ñu jox leen lu ñuy suuroo rab bi daal di leen bàyyi kon rab lu mu mën a doon bokk ñun ci centre bi fii dañ koy faj ba mu wér lu ñuy faje nag lu ñu doon la ci suñuy maam ndax suñu maam daan na ko faj fu nekk daan nañ ko woo fu nekk muy saafara lu mel noonu kon loolu mooy li nga xam ne mooy rab li ci bokk nag bari na ak yoo xam ne wérante bi bari na am na ñii rab la beneen bi ci dem moom nitu guddi la nitu guddi moom ñi koy weddi yëpp dañ koo xamut ndax dañ koo dundut loolu yëpp bokk na ci li nga xam ne mën na indi nit ki gàllankoor boo xam ne euh, fa tabaarakalaa dañ koy jaawatle bokk na ci nag mbokk bokk na ci ñu jaawatle lu bari mooy jinne bi nga xam ne dafay dugg nit des fois nga dégg ku koy déclare ne la rab bi dafa dugg jinne bu duggee jinne bi nag bu duggee euh, jinne bi bu duggee ci nit ki day tax ba mu jël meloom léegi da ngay gis waa ji damay joxe benn tur rek baabakër bu taxaw fii nga dem marché ba fekk Babacar muy traversé nga seen ne Babacar laa seen nga ñëw ci kër gi fekk ko muy dam ye ci grand place bi nga ne waaw pourtant Babacar laa gis fi muy dam ye fii kon Babacar mii kat est-ce que du dëmm parce que fekk naa ko fale déedéet loolu séeréer mu ngi koy woowee xon faaf xon faaf nag mooy bi nga xam ne jinne bi da lay dugg di di def dara ñu foog ne yow la fekk jinne bi moo la dugg ça n'a nag ak problème mu jinne yi di duggaateeg yooyu ça n'a ak li nga xam ne mooy dëmm ñoom nag boobu la ñu jël yaakaar ne loolu mooy nitu guddi donc nitu guddi bi ku nekk la mën a dugg mën naa dugg sa paapa jóge foofu dugg doomam déedéet loolu meen la amul kenn ku ku ku ñu mës a tëm damm tabaarakallahu fekk ne def ko euh, judduwaalewu ko wala maamam nekkuloon xeet boobu kon loolu meen la ñu ràññee ko loolu bokk na ci li nga xam ne dañ ko war a waxtaanee ndax nit ñi xam xeetu jinne yi nga xam ne am nañu fi te ak galankoor yi nga xam ne mën nañ koo def doomu aadama ba yàqal ko ay mbiram yépp incha allahu taala waaye lépp lu ci mën a ànd nag cuuraay moo fi nekk boo xam ne képp ku ko suuroo mu bàyyi la ilaa yow mi diin ak sa sangat yoo xam ne da bàyyi incha allah macha allah Serigne Babacar borom xarwaak leer li am na solo trop yaakaar naa ne loolu moo nekkoon leeral yi ci question bi bu ñu paree ci loolu Serigne bi bëgg naa tuuti ñëw ci wàllu faj wàllu jàngoro parce que mun nañ ne sunu borom defal na la ci jagle spécialiste nga ci ci wàllu faj ak yenn feebar yi te bëgg naa tamit nga ñëwal ma ci lu yaatu rek mooy mbirum nerf sciatique parce que amal nga ci ay recherche yu xaw a am yu xaw a avancé lool lool lool lool. bëgg naa tamit nga ñëwal ma ci mbirum nerf sciatique parce que tey nekk na gàllankoor bi nga xam ne ñu bëri tey da di faral di jàpp. waaw alhamdulilah nerf sciatique ñun ñoo ko moom ñun ñoo nekk euh, tradipraticien bi faj nerf sciatique ba mu képp ku ko wee dina ñëw kon définé défié naa ñépp ci wàllum nerf sciatique yàlla moo ñu ko kattanal moo ñu ko jox ñu am ci ndam bu rëy a kon am nañu sañ-sañ bakkoo ko ndax sant yàlla moo tax ñu def ko ci ñu affichage xam ne ñun ñooy saafara dëgg-dëgg nerf sciatique nit ki am nerf bu ko yóbbee hernie discale ba mënatul dox dañ koy saafara dañ koy faj day wér faj nañu fi ay nit ñu baree baree baree ci nerf ñoo xam ne dañoo yoroon ay bant di ci doxe ñu faj leen faj ko nag foo xam ne foofu moo jara faj ndax dañ koy faj nit ñi teg ci seen bët xam ko mooy ay nit ñoo xam ne gis nañ leen fu ne moo tax ma ne bu leen ko opeere mukk bu ngeen ko opérer rek yàq mais ñëw leen ci man ba ngeen ñëwee ci centre xarwa ak la gandong ñu saafara ko ba ba ba nga dox sa dox sa sa sa yoon kon bokk na ci li nga xam ne nerf si ñam la mooy nit ki nga xam ne day faral di crampe des fois bu ko jàppee om bi dafay daal di metti li di metti jàpp li wàcc ci suuf comme ni ma ko faral di koy waxee rek ci sama affichage bi nga xam ne ñu bari dañ ko war a dañ leen ko war a won ñu xam dëgg-dëgg fan la douleur yi di nekk. kon gis ngeen ne parti yi nga xam ne dafay xonq yépp métit lay nekk ñu xam ko kon dafay jàpp ci sa ndigg nga naan man sama ndigg li day metti xaaral ñu fasal ma ko fekk danga am problème sciatique foofu lay jàppee jàpp ci sa kiwis yi wàcc ci sa om bi ñëw ba ci sa baaraam yi day metti da ngay karamp boo toogee pour nga jóg problème la pour nga sukk problème lay nekk mën naa dem a dem dem ba ndigal nag fa tabaarakallaahu tànk bësuloo ko du du du nangoo sedd parce que neer bi dafa kepp yax yi nekk ci digg bi moom moo kepp neer yi moo tax ñu koy woowee hernie discale parce que daf koo kepp ci kepp boobu nag dafa am tubaab bi nu mu koy woowee dafa am ay L ay L am ay S am yooyu tabaarakallaa yoo xam ne mënuñ koo firnde ci émission bi waaye loolu ki nga xam ne def na analyse am dina gis ne bindal nañ ko ci Fanweeri bi képp bu ko defee nag ñun soit nga def euh, analyse yi indi lu ñu ko scanner bi indil ñu ko wala boo ko indiwul aussi ñun loolu concerné wuñu mais ñun daal dinañu fexe ba fépp neer bi nekk képp dinañ ko xam da ngay gis koo xam ne dafay ñëw di jambat benn côté buy metti ñun bu ñu ko laalee rek dañuy naan fii mooy am problème am naa ko fa ay nit ñu bari bu ma laalee ma ne ko pourtant fii moo am problème fii moo am problème hernie bi mais ko beneen côté bi mooy métti mu ne ma début ba fii moo doon métti mais après fii moo métti parce que da ngay sa bopp booy wéngal sa bopp nag pour douleur bi bañ a persister day tax ba nga wéng da gis nit ñoo xam ne dañuy demee côté ñuy dox demee côté bu yàggee dañ leen di jox ay dàll yu yu yu xaw a sutante pour ñu mën a équilibrer parce que dañuy wengal seen bopp parce que bu ñu demee benn côté bu ñu doxee normal dañuy metti après dañuy wengal seen bopp loolu tax na ba ay nit ñu bari déformé wu ci problème mu hernie discale waaye ak lu mu mën a doon dañ koy dal di faj ba mu wér am na li ñu mu li ñu ëpp ci li muy dal mag ñi la woon waaye xale yi dañ koy am bokk na ci sport yi nga xam ne da ngay def mouvement yoo xam ne xamuloo noo koy commencer ak foo koy eggalee ndax ñu ci bari tant que amuloo moniteur bi lay jàngal ni ngay defee sport dafay metti moo tax may wax xale yi de bu ngeen di def seen mouvement yi war ngeen am ku leen accompagner ndax yenn mouvement yu gàtt yi day joxe lii bokk na ci ñooñu mooy ñi nga xam ne dañuy entraîner entraîner bu metti moo xam mbër yi la moo xam footballeur yi la beneen bi ci topp mooy jigéen ñi nga xam ne dañuy yónni seen pañe yi di yëkkati di yéegal ci kaw bopp bi loolu boo koy def da ngay jékki-jékki nga def ko rek nga dégg lu yëngu ci sa ndigg fekk neer bi dal dina dugg mu kepp ko loolu bokk na ci li ngeen war a def pour yàlla musal leen doo leen mën a am li nga xam ne moo mooy neer sciatique waaye képp ku ko am daal maa ngi lay euh, wax ne la conseil bi ma lay jox mooy nga waaxu ñëw ci centre xarwaak lagandong pour la médecine traditionnelle mu dal di la faj lim lay fajee nag bokk na ci ay mocc fa tabaarakallaahu ba euh, yax bi nga xam ne moo keppoon neer bi daf koy bàyyi da koy libéré rek automatiquement nga daal di soulagé wu am jàmm mu jeex tak incha allahu mu bàyyi la ila yawmi diin kon loolu mooy mbokk yi loolu moo ni nees sciatique li ci bokk nag am na ci boo xam ne nag mbirum seytaane lay nekk nit ki ndigam mën naa métti fekk seytaane la mais bu dee naturel bi dañ koy faj bu dee boo xam ne dafa am baatin bu ci raxu dañ koy faj parce que lu ñu yàlla jagleel la muy ay mocc yu mucc ayib yoo xam ne góor ga yàlla na ko yàlla yërëm moo ko yore woon nga xam ne lépp lu nekk métit ci ndoomi aadama def ko doon saafara daan nañ ko woo ci ay ay béréb yoo xam ne ay béréb bu moderne la mu dem fa saafaara ay nit delluwaat këram yaakaar naa loolu ñu bari sedd nañ ko ko muy néewi néewi tànk tànk bu néewi moo xam arthrose la moo xam xeetu nerf bi ma lay wax na moo xam xeetu taab boo xam ne nit ki am na ko te wérul tabaarakallaahu góor ga daan na ko mocc ba mu sedd guy wala mu bënn loolu nag ñu la ko jox tabaarakallaahu moom la ñu yor moo tax yàlla may ñu ndam bu baax a baax a baax te ñu ko santee yàlla ne ñun ñun ñooy nekk le seul tradipraticien bi nga xam ne moom mooy faj hernie discale ba mu wér te du am benn jafe-jafe incha allah te du yàgg. macha allah Serigne Babacar borom xarwaak leeral yi am na solo trop loolu moo nekkoon mbirum nerf sciatique képp ñi la xam ñëpp xam nañ ni sunu borom defal na la si jagle nga def ci ay recherche yu xaw a approfondi ba sunu borom tey ji may la ci ab. jagle bu ama am solo sëriñ bi bu ñu paree ci mbirum ne sciatique bëgg naa tamit ñu waxtaanee tuuti yenn jàngoro yi nga xam ne tamit suñu borom defal na la ci ijaaba nga koy saafara si lu yomb yu si mel ni mbirum néew kattan yu si mel ni mbirum asma hémorroïde ak yeneen ak yeneen ndoxum siti tension lan mooy sa lan moo dox sa diggante ak secret bi nga xam ne tey jii suñu borom defal na la ko ci wàllu faj ba jàngoro yooyu noonu daanaka mun nañ ne képp koo si jëflanteel rek mu nekk daj dëpp gi suñ borom saafaraal ko ko. waaw li ci li ci jiitu booy ijaaba mooy sa baay sa waajur ñaanal la jox la secret sama référence mooy sama papa bi ma jur ndax moom moo doon faj ma nekk ak moom moo ma jox li nga xam ne mooy ijaaba bi jox ma secret yi bokk na ci tamit jàng euh, médecine traditionnelle ndax gis nga comme ni ñuy jàngee médecine moderne noonu laa jàngee médecine traditionnelle pour mu leer def naa lu upp juróom ñaari at ci plante naturelle ba maîtriser ko li nga xam ne dañ koy saafaara ci ay heure xam naa ko moo tax am na ñoo xam ne dañuy ñëw di lay laaj ndax feebar bii day am day am temps wala du am temps gis nga feebar boo ko bëggee faj mbokk mi dafa am nombre de jours bu muy jël loolu moom dafay leer pour ñëpp parce que damay bañ suba ñiy seetaan seen chaîne bi yaakaar ne damaa bokk ci ni lay wax soixante-douze heures ma saafara sa hémorroïde wala ma saafara sa sa sa tension mënu nekk mënuma ko def parce que li ma li may def dama koo jàng xam ne dafa am temps pour loolu gis nga calmant dafa am li may wax ci garab rek boo ko naanee trois jours une semaine di nga xam ne yaa ngi naan garab waaye nag loolu taxu da wér mais da ngay topp traitement comme niñ ko waxee ba traitement bi traité wu traité wu traité ba ñu ne la ah la nekkoon ci yow nag jeex na takk takk nga doog bàyyi loolu mooy faj mais képp ku la wax ne la tension bi mën naa koo régler léegi ci soixante du heures day wax lu ko neex garab yi nag boo ko naanee moom tension bi bu yëgoon day wàcc mais nag dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg pour mu pour mu disparaître foog nga jël ko ay jours mu toog a bàyyi parce que tension bi li ci li ci li koy li koy def dafa bari da ngay amee problème mu cholestérol am problème yu baree baree bare loolu mooy tax ba tension bi du normal dafay daal di yéeg waaye tension ni mu mën a mën a yéeg dañ koy régulariser ba mu wàcc. ci aussi nga xam tension bi ndax hypertension la wala hypotension kon tension bi yéeg bu ñëwee da ngay xool ba xam ndax da yéeg wala du yéeg donc jot na pour bépp tradipraticien mën a am jumtuwaay bu muy xoolee tension ba xam ndax loolu ñëpp lañ ko jox loolu ñëpp lañ ko jox. nit ki si boppam war na am tensiomètre am boo xam ne day xool tension am ba xam ndax normal la wala normal moo jabeta yëpp kon tradipraticien bi war na xool nit ki ba xam tension am fu mu toll mu mu régulariser ko ba mu wér bokk na ci aussi xam li nga war a jox nit ki mooy xam na yan garab nga woon a composé jox ko nit mbokk dama déglu kenn mu wax ni dangay jël xas mi nga def ko invision mu jaaxal ma trop lii koy firnde mooy xas xasum garab kenn du ko invisionné écorce soit nga nga kii ko nga kii ko nga nga xas ko ba jot bi nekk ci biir a biir biir boobu mën nañ koo invisionné mën nañ koo xooj sax parce que boobu dafay mel ni dafay mel ni euh, buum lay nekk mais écorce dañ koy togg dañ koy togg ba mu ñor pour bañ am problème kon loolu bokk na ci kiy faj war a xam ban garab la war a togg ak ban garab la war a infusionné ak ban garab la war a def ci ndox naan ko kon ren bokk na ci li nga xam ne mën nga koo xooj naan ko xob mën nañ koo invisionné waaye xas moom togg la laaj kon loolu erreur la erreur bi ci nag nag mooy garab boo xam ne bu jaan amee problème day riisu ci garab bi bàyyi fa dangoor ba béy boo amee jafe-jafe foofu lay riisu bàyyi jagoor ba léegi yow boo ko xasee naan ko ban la moo moo lay jar yow mi may laaj waaw loolu boo ko xasee xooj ko laa wax ban problème ngay am moo tax des fois nga gis nit ku mu naan garab kanamam bi di néewi fii amee ay picc ñu ragal garabu olof ñu ne day joxe joxe feebar day joxe insuffisance déedéet dosage boobu dafa am am na ci yoo xam ne aussi boo ko joxee nit ki nee na day diluer euh, day nekk euh, doroog ci biir deret dinaa leen wax tey ban reen mooy def drogue ci nit du drogue sax mais ñoom bu ñu ko xoolee dañu gis ne dafa ñuul ñu foog ne drogue la parce que day ñuul mooy reen boo xam ne dañ koo denc wala boog ñu gas ko ci nawet mu xaw a ñuul boobu dafay jël ndoxu nawet bi te demagul nga jox ko nit ki day ñuul ci moom moo tax mag ñi dañ daan gas garab ci noor waaye daanuñ ko def ci ci ci nawet incha allah mais tension bi day wër bu dee li nga ma laaj léegi la nga ma doon laaj hémorroïde loo dafay wér moo xam nag bi nekk ci biir ak bi nekk ci biti bi nekk ci biir nag gën nañ cee xam colopathie fonctionnelle mooy ki nga xam ne biir bi day ballonné day yuuxu guddi day yuuxu bëccëg dafay daal di miir bopp bi day metti tout temps day seere loolu day wér carrément képp ku la wax ne la mën da wér day wax lu ko neex peut-être amul garab bi koy faj waaye day wér disparaître complètement ba nga xam ne dootoo amati benn jafe-jafe ballonnement de ventre te loolu bu la dalee tamit bu dee góor a da ngay neew kattan ci wàllum say parce que circulation sangin bi dootul dox kon loolu ci laay ñëwaale ci impuissance bi loolu day tax ba nit ki impuissant parce que circulation sanguine bi dootul dox normal te deret bu doxulee rek nit ki daa am problème impuissance waaw loolu bokk na ci nit ki bu bu la dalee nga ñëw régulariser ko ci centre xaru ak Lagandong pour mu disparaître nga mën a fonctionner normal euh, beneen bi ci topp mooy impuissance impuissance nga may laajoon impuissance boobu dafay wér xataa nit ki am quatre-vingts ans mais day wér parce que lu ñëpp lu ñu wax ci écran bi dafa feex ñu dund ko dafa fekk ñu faj ci ay doomi aadama yoo xam ne noonu lañ meloon ñu wér kon képp ku am impuissance da ngay ñëw ci centre bi ñu fajal la ko mu wér parce que bu dee stress moo tax ngay gaaw a egg am na ñoo xam ne dañuy gaaw a daanu bëreet ñu daanu bëreet boobu nag ñu ne stress la am na ñu koy woowee loolu stress boobu nag am na garab yoo xam ne dañuy anti stress la boo ko naanee stress bi dañ nga dal di circulation sanguine bi normal nga dal di am durée ak sa borom kër ak sa jabar te wax naa ne nit bu amee loolu na ko faj boo ko fajulee aussi soxna si bu njaaloo yéena bokk nja bokk bakkaar gi ndax nit dafa war a satisfaire jabaram moo tax yonent bi mu ne bu ngeen julee ba selman ñaan leen nga am dafa baax kon euh, impuissance bi dañ koy saafaara ba mu wér ci lu gaaw a gaaw ak foo mën a nekk nag ci àddina dañ day yónnee sa garab foo mën a nekk fa tabaarakallaahu nga jëfandikoo ko nga daal di wér waaw mbokk loolu mooy euh, impuissance macha allah Serigne Babacar boroom xarwaak leeral yi am na solo trop yaakaar naa ne am na yeneen jàngoro yoo xam ne tamit suñu borom defal na la ci ijaaba nga koy saafara lépp rek li comme li olof Njaay di wax li duuf si nag li lépp xajul si cin li donc xam naa ni duñ def lu dul ñëw bàyyi la nga tàggatoo suñu mbokki internet yi ndaxte waxtu nekk na li nga xam ne daf la tënk Serigne Babacar boroom xarwaak lan ngay tàggatoo ak lan ngay dénk askan waaw li mooy gën a ragal yàlla delluwaat ci yàlla subhaanahu wa taala te xam ne lépp lu ñu wax ci àddina dañ koy waxaat nit ki buy wax na xool ñi koy seetaan ndax ñi lay seetaan mën na am ñoo la ëpp xam-xam moo tax waxtaan ci xam-xam rek am solo mooy wax li nga xam jëf li nga xam boo tëddee dangay naan nelaw bokk na ci aussi ñu ñu ñu yee population sénégalaise ñu delluwaat ci fajum cosaan parce que man mënuma consevoir sa maam nekkoon ci fajum cosaan di naan reen ba am sant temps di fonctionner ba xëy dee yow ñu ne la ren bi boo ko naanee da ngay am problème nga gëm loolu kon ñu la koy wax dañ yow yaa yaa xayb sa bopp rek kon nañu bàyyi delluwaat ci fajum cosaan te xam ne dëgg dëgg mooy liy faj ndax ñun li ñuy saafaara fii ëpp na ëpp na ay doomi aadama am nañu ay problème ñëw ci médecine traditionnelle mi ñu saafaaral leen ko kon loolu laay dënk mbokk yi ñu gën a ragal yàlla bu baax a baax te wax leen ne képp ku ci am jafe-jafe ci yi nga xam ne wax nañ ko ak leneen yoo xam ne waxuñu ko moo xam nit ki nga xam ne dafa am problème ba ñu bugg ko téye kaso tabaarakallaahu na ñëw ci ñun parce que nit ki mën nañ koo boole ak rab sax ba mu dugal ko kaso waaw wala nit ñoo xam ne dañoo bon te xamul lu tax ñu bon am na ci nit ñoo xam ne ñu ngi def problème boo xam ne am na lu nekk ci ginnaaw gis nga problème bi ngay dégg fii ci ñaari tur yi muy muy góor jigéen bi nga xam ne lombe na Sénégal ci jamono ji lu ci bopp dama ne nañu nañu xoolaat nañu defar njàngat ci loolu que des ne ma man maa ngi def masturbation wala sama xel day ànd ak ay jigéen jigéen woo ma ne maa damay ànd ak jigéen mais xaw ma lu ma koy def mais loolu rab da koy def mais nañu fexe ba saafara loolu am na ñoo xam ne ñu ngi koy def mais téyuñu ko parce que yaakaar naa nit bu nekkee nit normal du ànd ak moroomu góoram nit bu nekkee nit normal du ànd ak moroomu jigéenam kon loolu yëpp maa ngi woo sëriñ si ñu dugg ci déma def explication ci loolu ba xam lan moo waral li nga xam ne moo ci nekk da ci nekk nag bari na ay façon kon loolu bokk na ci li nga xam ne bëgg naa ko dénk askanu Sénégal te denkaat ndaw yi aussi ñu amaat yar amaat tegin euh, gën a dal bu baax a baax te xam ne Sénégal benn bopp la kenn mënu koo xar ñaar te nañu bëggante yéenante jàmm mbokk yi nit bu la tooñee sax baal ko parce que dafa xamul moo tax mu nax ko kon nañu muñ gën a góorgóorluwaat ci réew mi gën a defaraat réew mi incha allahu taala te gën a góorgóorlu bu baax baax ci li nga xam ne ci la ñu nekk boo ko defee rek yàlla dinañu jàppale kon Serigne Babacar moo doon ànd ak yéen fa tabaarakallaahu dekk fii ci Pikine képp koo xam ne yaa ngi may bàyyi xel mën nga maa topp incha allahu taala ci sama chaîne YouTube Serigne Babacar borom xarwaak incha allah boo ko defee ci suñu chaîne YouTube bi di nga gis waxtaan yi nga xam ne moom la ñuy amal fa tabaarakallaahu ak yéen ñu ngi dëkk fii ci Pikine ci koñu Kiné Lam bi fa tabaarakallaahu képp ku ñëw fi ba fii rek incha allahu taala ci Pikine ci wetu Pamecas bi di ñu gis tabaarakallaahu ñu ngi fii aussi Dakar waaye ñu ngi jaxaw siin ca village bu ñu wax Marut fa ñu juddoo fa ñu yaroo képp ku ñu soxla à travers la région de Fatick mën ngaa jaar ci suñu village boobu di Marut incha allahu taala ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi doon bàyyi xel suñu chaîne bi ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm di leen wax in uridu ila al islah mastataxtu wa ma tawfiqi ila billah wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa Thank you